asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi tey ñu ngi ak euh, Mame Ngor amoon ay questions yu ñu ko bëggoon laaj président de la république dafa euh, am liste bu mu def pour gouvernement am donc am ay coow yu ci am nit ñi ci réseaux sociaux yi ñu ngi wax jëmale ko particulièrement ci Amadou ci Amadou Ba kontaan na kontaanul poste sanction coow li daal bari na nag ñu bëggoon xam lan moo si xalaatam. waa maa ngi leen di fay di nuyu waa Dakar Show di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi xool euh, yaa ngi lire ci réseau sociaux yi à travers les réseaux sociaux yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci xool information parce que man dama jàpp ni euh, un gouvernement comme dafa mel ni comme équipe bu football le président de la république mooy entraîneur bi moom moom moo xam jour bu nekk fan la lay teg te jàpp naa ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi wala ñu nekk ci internet yi di commenter. décision président de la république mook ay ñi mu àndal man dama jàpp ni sénégalais benn moment waxuma sax sénégalais mais nit ñi des fois dañuy dem ba dañuy jéem a dugg ci xelu nit parce que tey man dama jàpp ni Amadou Ba su fekkee dafa nekk ministre des finance ñu xëy yóbbu ko affaire étrangère affaire étrangère ministère de souveraineté la tey jii ñi nga xam ne ñoo ngi commenter décision présidentielle bi naan waa ji dafa am ambition présidentielle wala dafa am lii ñoo ngi tooñ Amadou Ba man dama jàpp ne Amadou Ba bàyyi faalu Macky Sall la Sall lay liggéeyal tey jii Macky Sall moom mooy xool ku ko neex ci ñoom mun la fii laa la dénk te tamit man bokk mosuma gis fu ñu waxee ni Amadou Ba moo wax ni dama bëgg lii wala dama bañ lee poste bi ñu ko joxoon liggéey na ko ba yàlla dogal euh, président war a dem élection présidentielle président dégg commentaire yi Sénégal yi di commentaire li leen metteeg li leen neex mu dem wutuwaat pouvoir yàlla dogal mu amaat ko am na foofu sept il n'a man pour man il n'a plus rien à prouver là-bas donc tey jii mu ñël ministère diplomatie Sénégal dénk ko ko man yaakaar naa ni loolu euh, yokkute sax la parce que man pour man gouvernement lan man li ma jàpp ni moom mooy sanction ci gouvernement mooy nga nekkoon ci gouvernement xam nga ñuy defaraat gouvernement bees dàq la mais yow tey jii man dama jàpp ni gouvernement képp ku nekk ci biir gouvernement rek tey jii amul benn poste bu ñu ci joxe boo xam ne post d sanction la képp ku ñu jox Euh, euh, ndomba tànk ci ci ci gouvernement y a 14 de Sénégalais su ci jëlee 3 32 personnes def mu def leen boole leen ci gouvernement Sénégal ça diir dire que ni 32 personnes yooyu président bi xalaat na ni ay nit yu am compétence lañ deuxièmement ñu jox la ministère boo xam ni souveraineté la ah diplomatie Sénégal carte de visite du Sénégal lañ la dénk ça diir dire que ni président am na confiance ci moom donc nag ñi ma bëgg li ma bëgg rek di ko ñaan sénégalais yi mooy. tey jii ñi nga xam ne ñu ngi commenté ñii naan dañoo mer ñii naan dañoo def lii dañoo def lii ñu ngi tooñ Amadou Ba ndax du Ba tey jii mën naa ni bàyyi faalu Macky Sall encore une fois nañ ko bàyyi mu def lu mu war a def comprendre la liggéey diplomatie Sénégal ñi nga xam ne Sénégal bëgg nañ ko ñu am ko mais man dama jàpp ni fi mu toll nii sax dañ koy tooñ. Euh, dégg nañ bu baax li nga wax ci loolu euh, am na beneen aspect tamit bu nga xamante ni mu ngi ñu ngi koy dégg fan yii ñu ngi koy dugal tamit même si réseaux sociaux ba tey. muy nit ñi li ñu jàppee ni ñi ñu jàppee ay transhumants ñu ne Macky Sall daf leen zappé ñu ne Macky Sall boolewul leen su gouvernement am dafa indi yeneen yeneen kanam yeneen tur yu bees yu nga xamante ni kenn xamul leen woon loolu tamit lan nga am loo siy wax. non loolu li ma ciy wax moom mooy président de la république xam nga xam nga nguur dafa yaatu te tey jii nga ñëw ni dañ nga transhumé wala transhumance man pour man ñoom ñëpp politique la ñuy def te dañu bëgg Sénégal dox boo bëggee Sénégal dox nag doo xaar xam nga. Eh, ñu jox la poste parce que dañ la fay liggéey boo def non non non da nga war a ñëw jàppale président de la république jàppale Sénégal parce que président Sénégal lay liggéeyee nguuru yaatu na gouvernement bi 32 personnes la mais am na ay poste post yoo xam ne mu ngi fi ay DG ay PCA ay lu nekk mu ngi fi même bu ñu la joxul post sax le fet que nga am sa conseil bu baax sa xalaat bu baax ñëw di ko jox président yaa ngi liggéeyal Sénégal mais fii gars yi jàpp ni képp ku ñu joxul poste rek ça veut dire que ni dañ la zappé. mais le fait que président bi ngay wax mu lay déglu rek loolu doy na tey jii man maa ngi ñu bëri dañuy wax maam góor dañuy xaar président def ko lii wala def ko lee mais tey maa ngi ni dama jàppale président sans condition bis bu demee nag ba nga xam ne toog na xalaat ni lii dama ko war a jox maam góor wala xalaat naa ni lii war naa ko mën a dénk su ma woowee waxtaan ceeg man wala mu yónni nit wala mu nu mu mën a demee nga jàppale ko jàppale sa réew sa comprendre la donc nag loolu loolu loolu laay loolu loolu laa mën a tontu ci loolu parce que dama jàpp ni euh, du da ngay jàppale président rek dañ la war a jox ndomba tànk. yow Mame Gor ñun ñoo ñun ñu xam la balaa balaa balaa politique bi xamoon nañ ci waykat te ku ne woykat ne artiste artiste mooy ku nga xamante ni day sensibiliser. Mm-hmm. day xool dëkk bi nu muy demee ñu ciy wax dëggantaan dëkk bi nag am lu nga xamante ni mi ngi fi ñëpp constaté ko mooy dafa am ay occupation anarchique occupation anarchique nag yaatu na te du ñàkk teg nga ci sa bët nit ñi ni ñuy occuper espace yi ba nga xamante ni lépp xat na xam na loolu ni ñu bëggoon tamit nga wax ñu yow sa xalaat loolu tamit Macky wax na ko si prestation de serment bi ñu bëggoon nga wax ñu sa xalaat ci loolu. waaw loolu lu ma ci mën wax moom mooy tey jii xam nga il faut sénégalais yi ñun ci suñu bopp ñu arrêté di wax ni ah fii laa toog di fi jaaye ku ñëw bëgg ma fi jëlee ci sama cadavre lay jaar mu door fi mën a jóge parce que damay daan sama doole. Sénégal rek ngay dégg ñu naan mbedd bi mbedd buur la loolu Sénégal rek la am dans tous les pays du monde Sénégal rek ngay dégg ñuy wax naan lii mbedd buur la mbedd mi ñun ñoo ko moom population bi dañu war a am verdure dañu war a am ay espace dañu war a am ay jardin man bërki démb gëm naa benn pays africain fii rek mais da ngay xool ba fu sa bët yem autoroute yi mais tey jii dakaar foo def autoroute bu rafet nit a ngay xalaat benn magasin bu u bu jàkkaarloo autoroute bi tey jii boo xoolee li xew ci yenn rond point rond point bu mel ni rond point liberté 6 da nga fay dem mel ni ku nekk marché mbëbës te c'est en plein ville donc nag ñun sénégalais yi ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci capital bi ñun ñi nga xam ne ñoo doon ay ay ay célébrité wala ay nit yoo xam ne c'est des porteurs de voix ñoo mën a sensibiliser population bi waxtaan ak ñoom parce que dañu étouffé dëkk bi tey jii lu ñuy ñaan les autorités mooy ñi nga xam ne ñoo yor affaire environnement wala urbanisme ñu taxaw ci loolu mu doon les premières décisions parce que président de la république wax na ko Rwanda gi ngay gis Paul Kagame avant mu koy jël mais génocide moo fa amoon mooy tey jii gars yi dañu koy tiitaroo ci Afrique naan mooy dëkk bi nga xam ne moo gën a rafet que ñëpp dañu jóg tey jii du nguur mooy defar dëkk population mooy defar dëkk tey jii Sénégal bu fi jógee dem Espagne wala nga jógee fi dem Australie wala France wala fu mu mën a dem ci mbedd yi ngay taxaw di photo wu ci ak ay monument mais fii fi mu toll nii amuloo benn espace boo mën a taxaw photo wu parce que fépp def nañ fa ay taabal di jaay fi ñu def ay garage mécanicien def ay parking parking yi ngay gis ni tey ji mu bëri ci autoroute bi bëri ci tali yi bëri ci VDN bi bëri fu nekk tey ji mënoon nañu wut benn hangar bu mag def ko jam ñaajo ñu am ay bureau fii ku bëgg a louer oto wala ku bëgg jënd oto ñëw toog xam nga mu am ay caméra ñu ubbi la kii wala nga jël oto dem ba foofu ci hangar bi toog gars yi tegal kii nga xam nga jënd oto bi nga bëgg a jënd bu fekk l'occasion de nga xool ñu louer la oto war a louer mais gars dañuy ñëw occupé place publique bi koo ci wax mu ne fii bu ñu ma fi naree jëlee sama bakkan la ñuy jël parce que damay liggéey ba pare nag ci ñi koy wax ñoon fi dax akaas Sénégal dafa salte dëgg bi dafa tëlem waa autorité yi liggéey ñu di saaga président di saaga ministre yi c'est pas normal donc suñu dëkk ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp encore